dinaa an wolof njaay de nee na garab gay doon péncik law bi di ko gis ba ko yett turbine yéen a kaay na ma moo taxit jéem jeem daal di fii bàyyi rek sondage yi daal daal dinay wane ni moom des médias mooy leader fii ci réewum Sénégal Sen TV leader rajo Zik FM leader toujours leader sax ab sondage la boo xam ne def nañ ko diggante septembre 2021 ak mars 2022 loolu agence Kantar moo ko daal di def leader mondial ci wàlluk étude ak wàlluk saytu mu xam le ni nag ci seetaanum télé ci réewum Sénégal Sen TV moo nekk ci kaw waaye tam ci déglum rajo ci boppam mooy leader moom 24 heures yéen a kaay ne ma étude yu Afriscope 2021 2022 yii ci wàlluk audience xam ne na ni rajo Zik FM ak télé bii di Sen TV ñoo nekk ci kanam ci paysage médiatique bu mu Sénégal moom président Macky Sall nag nee na day promouvoir secteur privé national nga ni da ngay jàppale say doomu réew yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi di fi liggéey liggéey bu am solo waxtu wow télé bi nga xam ne moo jël premier nga ne da koy tëj rajo bi nga xam ne moo raw ci Sénégal yow président Macky Sall ngay def ay pexe pour tëj ko ñu ne la sa réew ñii ñoo fi champion dang leen di tëj loolee xel ci boppam moo ko mënta nangu 24 heures yéen kaay moo ma ko xamal Aliou Tine ci direct news ne moo taxit farlu rek waaye tam jàppale waa des médias bi ci combat bi ndax coow li coow li du Bougane Gueye Dany de coow li coow li nag affaire Sénégal la ndax ay doomu réewum Sénégal la bëgg a xoj ñàkk loo leen seen liggéey le thème mooy yéen kaay ne saa si temba day groupe des médias ci boppam xoj lañ ko daal di def xoj gu méttee métti goo xam ne nii nokki sax daanaka tëna leen sur soit jox kàddu Bougane Gueye Dany muy xam le ni nag saa si man ci boppam la ñuy wër ndomb coow li man la ñu bëgg am man Bougane Gueye Dany tribune yéen kaay ne terewul Sen TV mooy leader ci Sénégal rajo Zik FM mooy leader ci Sénégal ay sondage ci boppam ñoo ko daal di xamle le témoin yéen kaay jox kàddu guy Marius Sagna guy mel ni kuy xamle naan lu waay muñ mu daal di jeex ndax saa si tembe nag maa tey gi ak jëfinug buur gi nga xam ne président Macky Sall nekkee na ko ci Sénégal loolee nag léegi mu daal di dakk ci réew mi guy Marius Sagna ne complot bi nga xam ne saa si tembe ñi ngi ko teg ngir fas yéene liquider Ousmane Sonko day daanu ci taxaw ak Zik FM it de le soleil yéene kaay ne président Macky Sall mi guy naan léegi mu dem moom président Macky Sall daal dëggal na ne waxul wii waxul non Sall ngaari ne waxtu jotee ngir jël kàddu ci lii man président Macky Sall naa ko def l'indépendant yéene kaay xamal ma ni moom président Macky Sall nee na mbir mi du ab débat juridique te day doon candidat am déet ab dogaluk boppam la yéene kaay bi ne ma waxtu woowu moom Union européenne ma ngay dal ci kaw nguurug Sénégal ci yenn yoo xam ni daal dafa xaw a lëndëm ci xelam dooree ko ci parrainage bi ci fichier électoral bi nga xam ne yenn saay dëgër lool ci yenn ciy politiciens wax ci Sénat bi nga xam ne yenn saay ñu koy tuumaal présidentielle 2024 beeg na mu war a tëddee moom Union européenne day ma ngi cay dugal ni nag leer naññ leen ci bëgg naññ bés bi la journée boobu day ñu ngay tibb suñu alal bi yoon nag jëwri ni ci boppam lañ ci daal di taqal moom rappor bu Cour des comptes daal di xam le ni daaj ngom ñaa bi nga xam ne moo nekk ministère des sports dafa daal di def ab violation ay millions yu bëri daal di ñàkk mu daal di cay tudd ministre am ba woon Matar Ba daal di sàkku nag ñu daal di koy jéggal yéeni kaay ma ci ministère de la santé lu toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñetti ci millions loolee la ñu daal jël ci gafaga ne dañ koo fay ñenn ñoo xam ne dañoo nekkoon ci comité de gestion bi te ñooñee bokkunu ca coow la mooy ana xaalis bi ndax nag waa comité de gestion ci boppam ñenn ñaa ngi sàkku ab pay leen fa yéene kaay na ma ci covid 19 bi moom daanaka ministère de la santé moom dafa doon lekk nam ko neexee am na ñoo xam ne sax yéene kaay bi ne setal boppam ci rapport cour des comptes bi ñu ne dañoo jàpp daajam bi ci xeex ñu doon xeex Covid am na enveloppe boo xam ni dëgg la jébbal nañ ko ministère bu développement industriel ak petite ak moyenne industrie ngir nag lu toll ci juróom benn million ak ñaari téeméer juróom fukki junniy masque ñu daal di koy jënd société yii di Sokamus société bii di Sosenap société bii di Comaset société bii di CNH société bii di Carmen ñooñ ñëpp daal di nañ leen di defal ay commande fay nañ leen seen xaalis livré nañ lañ leen waroon livré amul benn détournement boo xam ne am na ca code les marchés respecté nañ ko te daaj bu ministère bu développement industriel amul lenn loo xam ne taqal nañu ko ko coow li kay mooy daanaka xanaa mbir mi ab njumte la cay daaj yi bàjjo bi Walf Quotidien ne ma daaj yi ci boppam ñooy fay lépp loo xam ne luubal la ak lépp loo xam ne ay jalgati la te seeni supérieur def ko Sud Quotidien sampub laaj ne président Macky Sall mi fi xamle woon ni gouvernance sobre et vertueuse fu mu toll nag ci sunu ameel ñun sénégalais yi bu doonub rendez-vous la ak yorin wu sell daanaka président Macky Sall daal dina koy manqué suñu alal moom président Macky Sall Wade daal koy sàcc mi ngi mel ni nga dénk bu kib seel l'observateur ne sàcc gu metti lañ nekkee saa si tembe audit bu ARMP bi rapport bu kuur des comptes ak bu IGE xam leen nan ni suñu njiit yi nekk ci réew mi ñu lu dul di sàcc suñu moomeel yi l'observateur ne nu ñuy def ba duñu sàcc saa si tembe dañoo jël ay mbagg yu diis loo teg ko ci yenn ciy dossier def lu ne weng te dara du la ci fekk ci réewum Sénégal moo fi am gaa yi dëkkee di sàcc suñu moomeel sàcc yu metti l'observateur ne ma Mimi Touré daal dinay xam leen ni ab loi buy saytuwaat mission bu IGE loolee la bëgg bëgg amalaat ci réew mi critique yéen kaay ne ma boobu honorable Mamadou Niang ak Massata Samb day fañu nar a mujjee du neex ni ki démb nag ña nga woon ca gardaaw yi sursu aane ma tey jii ñaari député yi pur yi daañu leen defere moom Massata ak Mamadou Niang ni ki démb nag dañoo lànk ne duñu tontu laaj ci tànk nag seen immunité parlementaire teggiwun ko l'évidence yéen kaay jox kàddu maître Adama Fall avocat yu député yi muy xamle ni seen malaanu kiiraay la ñu waroon teggi ba noppi laataa ñu leen di déglu wala ñu leen di téye tribune yéen kaay ne ma fan nar a ci boppam la nuy ñàkk boobu ci assemblée nationale ab motion de censure la yeewi askan wi daal di dugal waa wàllu gisuñu seen bopp wal fu ko dijee ne ma yeewi askan wi dafa piégé wàllu tax ba premier ministre amadu Ba war naa dellu ci assemblée nationale justice su réewum Sénégal waxtu woowu ma nga yëngoonu ne ña nga ca coowal Adji Sarr la ña nga ca Papa Alé Niang diggante Ousmane Diagne ak Papito Kara déglu nañ leen yéene bi ne ma Ousmane Diagne ak Papito Kara mii ña ngay am xel mu dal ne daañu leen bàyyi léegi ñibbi seenu kër ndax ñoom ñaar déglu nañ leen te seeni avocat dugal nañ ab bàyyeeb nëganduku Sud Quotidien dama Papa Alé Niang moom dellu na kaso le journaliste yi def keroog ci assemblée nationale moo ko delloo kaso libération yéen a kaay ne ma moom Seydina Omar Touré déglu nañ ko te la mu waxoon jógu ca daf ko sax faf bind jébbal juge bi ka a xam ni it moom moo di MC Niass ni ki démb nañ ko MC Niass daal di jébbal benn clé USB ka a xam ni moom moo di juge bi clé USB ba mën nañ ca dégg Mamour Diallo ak Adji Sarr ñuy wax waaye tam moom MC Niass jébbal juge bi benn waxtaan téléphone boo xam ne diggam ak Adji Sarr la Adji Sarr di ca wax loo xam ne doy na waar lool libération yéen a ma lu mu wax na ca Mamour Diallo Mamour bi nga xam ne audition am ay avocat Ousmane Sonko day ña ngi koy sàkku tribune yéen kaay ne ma waxtu woowu day ab organisation patronale bu yees daal dinay juddu ci réew mi fas yéene nag joyantiwaat entreprise yi nga xam ne ñu ngi ci réewum Sénégal nanuy joxee marché yi entreprise yi nekk bitim réew la ñu bëgg mu dakk cinquante cinquante kay mooy am ci réew mi organisation ba c'est cinquante PN la tudd ak marché bu fi mënti am dañoo bëgg entreprise bu Sénégal moom xaaj beneen xaaj ba kun koy jox ñu daal di la koy jébbal xoolal marché BRT bi xoolal liggéey liggéeyu stade national Abdoulaye Wade bu jam ñaajo xoolal liggéeyu l'hôpital Aristide Le Dantec amul benn sénégalais boo xam ne jot nga ci marché yi lii nag la see cinquante pour cent PN bëgg mu dakk ci réew mi tribune yéen kaay ma leneen bu dakkul ci réew mi day ñu daal di jommi cekki reen am na xale boo xam ne daal di nañ koy faat beneenu attaque amee armée daal di am ca Somone xam ni ñooy ay complice su Koyaate yi daal di nañ leen di jàpp libération yéen kaay ne ma juróom benn lañ tollu complice di koy jàpp ci beneen kër beneen suspect ay téléviseur ay koo sàcc ak yeneenu ngir daal dinañ koy gis ca kër Ali Kouyaté l'observateur ne ma tës baa ngi de waa ji dafa bëggoon namp coro jàmbur xale bu góor ba ni ko du ci dal mu daal di koy rendi ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoog jàmm